xam naa ni dañuy gàttal rek ci ginnaaw bu ñu màggalee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu lislaam di nuyu borom dëkk bi di nuyu alkaali bi waaye di nuyu imaamu dëkk bi di tax siisal nuyoo nag sunu soppee sunu mbokk mooy al ustaaz nga xam ni mooy mudiru madrasa Umar Fuuti wala mahad Umar Fuuti école bi nga xam ni moo koy diriger am na lum ma fàttali sama njëlbeenug njàng ginnaaw jàng alquran ba pare ci sama magu papa rakkam moo ma jàngal alquran ñu naan ko cheikh kan alayhi rahmatullah bi ma ca paree maa ngi jàngee ci sama mag sama turandoo wayjur muy Ahmad Ly ñu gën koo xam ci Ahmad Haaruna Ly lu bari moo ko def ci man génn ci man lu bare bare bare bare ci ay jikko ak yoo xam ni su ma ko continuer woon amaan na tey ñu ma agsi fii ndax ndaw loo gis am na jaar-jaar de kenn bocci koowu ci bàyyi ko asamaan ñëw kenn laa wax ku nekk ci ñun am na foo jaar soo fàttalikoo rek da rus boo fàttalikoo da rus rawatina ndaw ndawul Dakar juddoo Dakar màggee fa yaroo fa ndawul banlieue juddoo ñetti mbaar yaroo caaro yi ci digg bandi ya saay saay ya ah kooku il faut moom loo lu ne ci yow kooku moom li ñuy ndong ndonga Banjul dëgg-dëgg da jaar ci ndonga xaw ma àll bi day continuer xaw ma du continuer sama mag boobu bëri na lool moo ma ci génn de wallahi alladi laa ilaha gayru wallahi li tax ma leen di nettali daa am lu ma bëgg a wax yàllaa ma dimbale nekkoon naa ci musique de la ilaha illa yàlla rek mooy buur duma ko ragal a wax ndax léeg-léeg ñu xasee nit ne la jaar nga ci nangam waaye bul ragal neel jaaroon naa ci xaw ma woon ba ma xamee génn naa ci loolu mooy li Moussa waxoon bi ko Firawna ne alam nu rabbika fiina walida wa faalta faalataka allati faalta lu mu def rek ba mu ko wax wante min a kaafiri mu ne faaltuha idan wa ana min ad-dallin ba ma koy def xaw ma moo ma génn ci yu bari sama mag boobu moo ma génne ci musique sama papa woo ma ba mu ñëw mu ne ma Umar mu ne ko naam mu ne ma ñaar juruma ko ma ne ko ah mu ne ma juruma mbërum làmb juruma waykat xoolal nag lu la ci neex en tout cas daal man juruma mbërum làmb juruma waykat wallahi sama way jur bu góor lii la ma wax ma am kersa ruus sama mag bii moo ma génne ci football de te sama famille xam nañ ne mënoon naa ci am lu bari wuyu woon na ma trop nag football eh, wuyu woon na ma de waaw waaw su ma te continué woon leneen lañuy ñuy wax sama mag booba moo ma ci génne te xam nga bu ñu nee football rek mooy lépp lu làmboog caaxaan magata illa man rahimallah daawaati jéeg dama dajeeg sama benn ancien entraîneur yàlla na yàlla jéggal yéral ko mooy aat jàkk muy toog ba jàgg mu ne booy lii bett ma wut yow nii rek nga mënoon mel football kat boo xam ne bu waree football ni xaaral ma julli ba pare bu ñu amee kumbal war a caa mën a <laughs> non man ma dem toogi fële booy lii rek moom mënoon am fekk dafa jaar sakkoor ma jiite ko jumaa jamono yam fay jiite mais ñi mu àndal nag mi ngi leen di wax lu bari di leen déey ci sama démb ñun ñëpp am démb kon yow mi di ma déglu di déglu keneen baal xel ne ki ngay déglu amoon na démb dalaa bëgg a dimbale ci lii nga nekk wax la ni mi ngi ci woon mais ba mu xamee ne baaxul da koo baax loolu rek moo nekk euh, daanaka wax gi ma bëgg a wax li nu war a waxtaane ak yéen mooy jikko yu yàqu yi muy la dégradation de mœurs jikko yi nga xam ni day yàq du defar te bu ñu deful ndànk dana dem ba dagan suñuy bët ba dagan ci suñuy jëf léegi kii am jafe-jafe mooy ki naan lii xaraam na moom la ñuy teg fële dafa am suñu benn góor daa magee amee tension seeti docteur bi góoru saalum saalum ndeysaan yal na ko yàlla yërëm góor gu bëggoon alxuraan amoon ay bëy lool waaye nag yàlla nattu ko mu bëgg jàppal ma jàpp da koo bëgg lool xam ngeen wolof boobu jàppal ma jàpp ah mooy ndawal ku bëggoon ndawal la góor gi dem seeti docteur Kaolack docteur bi xool ko ba yàgg ne ko baaxal xorom baal diwlin baal poobar baal kaani baal baal ba jaa góor gi ne ni weer ne ko nga ni mu ne ko baal yi yëpp mu ne yow mii laa defar yow mii laay baax <laughs> tourné àgg këram agsi ne naa leen ma benn bay docteur bi nee naa bàyyi ndawal ñëpp xaqataay <laughs> xam nga kuñ ne baal ndawal bu ñëw njëkk ak si rek ne rayal leen ma bay mm-hmm. kooku fasut yéene bàyyi ndawal mbokk yi jikko yu yàqu yi ci ab société société lu mat bàyyi xel la li ñu bëgg njëkk génne mooy xutuuratu riyaabil axlaaq danger bi nekk ci jikko yu dem wallahi innaha adamatun haqiqiyya yàlla xam ko ñun ñëpp ñu ngi koy dund adamatun la yalamu awaqibaha illa allah wallahi fi muy demee yàlla rek ko xam mbokk yi jikko bu yaqku su nekkee ci nit léppam yàqu na olof nee na jikko mooy mbootaay su baaxee doom na ci sécurité su bonee doom wat mbootu jigéen ña xam nañ ko jikko mooy mbootu de su baaxee doom ñoŋ su bonee doom ñoŋadi mbokk yi tey famille yi jikko yi yàqu na ci sëy yi jikko yi yàqu na pénc mi jikko yi yàqu na dem na ba tàmbalee dugg ci biir jàkka yi mbokk yi te bëri na lu yàqu jikko yi ñu nag moom a ànd kenn ku nekk ci ñun yaa ngi sa télé su ndaw ci sa poche portable danger bi mooy dafa dem ba jël ci suñu dund loo xam ni place bi mu ci am dara amu ko ci démb rek bi ñu toogee di waxtaan ba ci di dégg naa ko ne hee tey ñu amul connexion moo tax ñu ngi waxtaan jotaay baa ngi neex de lan nga ciy déggee bu connexion amoon kenn du wax ak sa morom bu amee kenn du wax ak sa morom kon loolu lan lay wane mooy li lay yàq yow yaa ko yore li ngay xeexal bis bu nekk di ko muslu yaa ko yore li ngay daw di ñaan yàlla mu muccal la ci yaa koy seet kon nan ngay ñaane yàlla mu musal la ci lu bon te nga nekk ci lu bon ci téléphone bi xanaa ni mu bonee ci téléphone bi du moom la bonee ci biti am na ci ñun yoo xam ni ci lenn ci ay xale yu góor yi ma ñemee wax ak yu jigéen amaan na taxaw ak jigéen wala wax ko leen ñemewuñ ko waaye télé téléphone kenn amaalewu ko kersa ñu bari ñu bari ci ñoom dañuy yore seen téléphone làkku xam nañ li may wax ah waaw waaw jabari téléphone moom nekk ci rek nekk ci rek ba xëy rek uti noo sangoo ñaata ah ñu ngi dee de waaye li am na de nañ ko de ah ñaata yoon la ma nit di seeti dama ustaas man de dama doon masturbé vraiment bëggoon nga may ma luy maye kàttan xaw ma nu ngeen doota masturbé si istibna istibna ah masturbation. Ah, waaw kay mooy masturbation ñaata ci xale góor yi ñoom lay dal lu tax parce que da wéet ki lay tere new bi li la war a tere moom nga fàtte mooy lan nga fàtte raqabatullah da nga fàtte ni yàlla mi ngi ma tiim xam ci li ma nekk kon bi ma nekkee ci néeg bi ak biti bi yàlla ma ma doon tere ci biti moo ma tere ci biir mbokk yi dem na ba ñu ihmal diine jikko yi yàqu yi dem na ba ñu tuutil diine wallahi te xam nga li gën a bon ñëpp a ngi koy def jamono bu ñu àggee ci ñëpp koy def mooy ñëpp yàqu nañ dama am suñu benn góor seen daara de quran lay jàngale kaang la ñu may ko jabar ca wetu saabu ya comme saalum la fa amoon boo takkee jabar foo jaar jëndal ko magnétophone amoon na fii de danga ko jëndal magnétophone jëndal ko juróomi kasetu alxuraan ah lu ñu koy jëndal ah ñoo ko ko jëndal de góor gi xoola seen daara ñi mokkalee ci moom alxuraan ni mu tollu kaang la mu dem Kaolack bi mu demee Kaolack yañ ko jëndal daf caa am bu seet bi bëgg te amut ko te seet bi xale la fukki at ak juróom-ñaar mu ñëw ndaw si ne ko nijaay man fa ma bëgg daqaar ga ca yoonu mbaadaan <laughs> góor gi xëy xëy dugg horaire bi dem Kaolack xanaa ñuy jaay ñuy jaay banda yi ñu ne mais Dakar ga ca yoonu mbaa daan lay wut gaa génn ko way woowu ñu naan Dakar ga ca yoonu mbaa daan pa pa bi ñëw bi mu àggsee ne xay Dakar ga doon laaj Dakar ga ca yoonu mbaa daan ni waaw kooku ndax dana wax ni muy dig xaraam na ndax jàppee na ni muy dig xaraam na xoolal day nekk ci néeg bi néeg bi toog xaw ma ci néeg bi seet bi toog Dakar ga ca yoonu mbaa daan di jàng loolu da lay wan ne gis nga gis nga jikko bu yàqoo li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam jamono ngi ñëw danañu daganal lu xaraam xaraamal lu dagan te kenn dootu ko kaas ndax dafa dem ba bët yi tàmm ko jëmm yi tàmm kër goo dugg bu ñu tegee musique paa bi na ku nekk toog sa téléphone di musique mun a cell pourtant la ko tax ni huu fii moo ne fii lan moo tax bi ki yore téléphone bu muy musique neewul hu pour moom dafa jàpp ne dara nekku ci téléphone la du musique loolu moo lay wan dayo bi bi jikko ju suufe àgg foofu la lay yóbbu jikko ju suufe dana àgg foo xam ni li xaraamoon ci col dootul xaraam démb amul benn jànq bu ñemee romb papaam yaramam dara feeñ amul waaye tey ay papa fan nekk jamono li jamono ko laaj ji mun naa ah konte dara newu ci kon léegi jamono daganal na lu xaraam dama xamul gis nga euh, xutuuratu danger bii ñu bëri duñ ko bàyyi xel démb jigéen saalum ak biti saalum daawul joxe loxo jigéen ñi ci ëttu wàlla ya lañ doon nekk daan nga ñëw ci kër ba génn doo gis jigéen boo gisee jigéen xale yu jigéen ñi dañuy làqatu ji joxe loxo daawuñ ko def tey bu ñu toll ah ay léegi kay lañuy wax fi mu ne nii accolade mooy mooy lexal càmmoñ ak ndeyjoor foofu dañ toll. ndax ñiy dund léegi dañoo fàtte ne la xaraamoon démb moo xaraam tey waaye seytaane mooy tuutil yenn yi ci ñoom. gis nga tasghiru zunub mo yefti nit dem ba bakkar tuuti ci yow mbokk yi borom bi taala wa tabarak dafa wax ni idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha borom bi neena suma namme ma nammee yàq dëkk ña am nya am tour ñokoy koy yàq ña am te am tur ñoo koy yàq mbaa xam ngeen lu tax yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi leen doo nga tax yàlla yónni ko ne innama bu'istu li utammima makaarimal yàlla daf yónni ngir nga ma mottali jikko yu rafet yi loolu la ko yàlla yónni kon jikko yi amoon na day jékki li réer par benn loolu nag danañ ko jàngat ci jàngat loo xamante ni dinaa indi rek benn xiwaar diggante Quraysh ci seen biir Jaafar ibn Abi Talib di rakk ci yonante bi Amr ibn di kenn ci yéefar yi bi jullit ñi gàddaayee ndax fitna buñ leen di fitnaal ba ñu ñëwee ci Najaasi yonent bi leen wax ni dem leen Xabas am na buur bu fa nekk kenn du tooñ kenn ci wetam allahu akbar loolu manqué na léegi buur boo xam ni du jullit waaye kenn du tooñ kenn fi wetam jullit ñi ñëw yéefar yi bëgg a jëli jullit ñi ngir mbugal leen yónni ñi ëpp xel ci ñoom ne leen bu ngeen demee yóbbu leen adiya lu ngeen fa mën a wax ba yàq seen der indiwaat leen def leen ko nga xool bi yàlla yi yónni yonent bi sallallahu alayhi fan la umma bi tolloon ak tey fan la tolloon bokk na ci ci xissa bu gàtt bi ñee ñëwee indil najaas yi ay ndimbal ne ko nag xale yi dañoo weddi mag ña dañoo sànni diine yu bàyyi dañoo indi diine yu bees dañoo indi lu bees defe naa loolu fan nga ko diine yu bees te ndeysaan diine yu Muhammad indi mënta nekk lu bees moo mag ci diine yi fii waaye gis nga bi ñu waxee loolu Najaasi ne leen man nag duma benn nopp yéen wax ngeen bàyyi leen ma woolu leen ñu ñëw ñu tontu ci li ngeen wax su dee dëgg ma bàyyi leen ñu dem su dul dëgg kenn du leen laal bi ñu ñëwee jotaay ba ñoom ñu dem ger jege ñaale Najaashi may leen der may leen peme may leen dund ne leen jàppale leen ñu ndax buur bi bàyyi nii ñu yóbbu leen bi jullit ñu demee ana kan mooy yore suñu kàddu ñu la jaafar am na xel xam na li muy wax xam na ni muy waxee kilifa te mooy rakk yonent bi moo ko gën a sës ci yéen bokk na ci li jaafar waxoon ayyuha almalik laqad kunna qawman ahla jahiliya nabudu al asnam ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرهام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه fa daana ila llahi azza wa jalla li nu waxida ma dagg ko foofu mu gàtt lan la jaafar wax nga jàng li jaafar waxoon démb ak lu ñuy dund tey ndax am na wuute jaafar li mu wax mooy ay yow buur ñun de dañu doon jaamu xërëm ku nekk am sa yàlla dunduñu ko tey ah ah ñu ne ah kay bëriwuñ de <coughs> ah am na fi de boo koy fépp la jaamu xërëm am na de xay jaamu xërëm weesuwut di xaar ñu jox la ndigal lu yàlla joxoon nga jëfee ko loolooy xërëm di ndax jaamu yàlla duñ ci toll ngay jullit war koo def ne naa xaar ba Samba Ndiaye wax ma loolu daa weesu wut xërëm naaxaar ba dem ba wax ma weesu xërëm yàlla santaane nga ba firi yàlla santaan di xaar ndax biraan nee na waaw wala déet kon biraan moo naan waaw mu dagan déet du dagan suñ jigéen na jaamu xërëm lan mooy jaamu xërëm kon am na tey àgg nañ ci foo xam ni xërëm yii nekk ay jëmm ñeme nañoo def lu xaram kenn du ko wax day mel ni xaram daa dagal ci ñoom amul fii man de gëm naa ni kenn ci ñii fi nekk su takkoon ñeenti jabar bëgg juróomeel waa dëkk bi bañ waaw wala de waaye am na ko bu defee <laughs> moo ko sañ de amul xanaa loolu daa dagal kon ci moom araam ci ñun ndax dafa ndax yàlla diine ji am na loo xam ne day araam ci ma sàmba dagan ci ma demba loolu am na abadan amul ndax yemuñ ci diine ji waaw ñu ñemee taxaw nit def lu xaraam di kilifa diine ñu ne cell bu ko kenn waxee ne diw de diw fit de wala li mu wax kon day tekki ni kenn ñemewu koo wax lu tax duñ ko ñemee wax te yàlla wax ko lu tax wallahi ladi laa ilaha gayru kenn ci doomi kilifa yi dafa ñëw ci ak quartier nekk fa moom daal nañu ko respecté xale yu jigéen yàgg yu góor ya di dugg ci néegam di génn benn góor naan ha jëmut kër de wallahi Baye Moustapha Gueye moo doon wax loolu jëmut kër de lii ma gis jëmut kër de nit ñuy seetaan waaye ba ñu demee ba ñeenti weer juróomi weer coow li jóg ñu nëpp nëppalaat ko doomu sëriñ ba dem na bàyyil nañu fa ay doom juróomi xale yu jigéen ku nekk ëmb ku ko ku ah wala wax di demul kaw wala weetaana sama benn boy na boy dof dof lu nga ëmbal nga xool ci penc mi la ñuy duma bëgg a bëgg a dee dagal sëriñ bi bandi la ko nga wax da ngeen di mbir da ngeen koy ngeen gis gis ak caay caay ku mu nekk yow saay saay nga loolu mënul mënul nekk mënul dagal ci ma aram ci ma nekk xale yu jigéen yi doon jël njoganal di koy jël yóbbu di fa toog buñ ko defoon xale bu góor paa yi kaas xale bu góor bi di koñ ko bu benn xale bu jigéen yéen woon njoganal yóbbul ko ko toog ko papaam na ko tey ma rey la dakaa dof lii dafa xaraam waaye mu dem yóbbul ko sëñ bi moom dong ñu ne <laughs> doomu diw la moo tax doomu diw diwoo ko gis nga def ñooy yóbbu ci ñàkk fayda goo xam ni wallahi والله ما الله به عليم دا غاي خام ني سوف دد مو اد تي ني فو خام ني من نا نيو دوند نيك اي جوليت ني نيوكو سان ني سان نكو لولو امول موتاخ مولاي كنا قوما نعبد الاصنام دا ني دون جامو اي خرم ونأكل الميتة دا ني دان ليك ميدو دونو رندي لوني جوت ليك lu ñu jot lekk dañ ko daan lekk wa natil fawahisha dan doon jëf jëf ju ñaaw ci diggante góor ak jigéen ku ëpp sa morom doole njaaloog moom nee na loolu lañ doon dund tey xool leen téléphone yi njaaloo gi ci ne tey xale yu góor yi bu ñu amee baal ku ñuy woo xale yu jigéen yi wax naa ko benn benn waxtaan euh, ci benn dëkk ma ñëwee gi gën xale yu góor yi muus ak caay-caay moo ne ci ñoom mbaa xam ngeen ni xale yu jigéen yi yéen lañuy ñuy jaay te yëgu leen su ñu amee choléra walla dancine ñu bind ngan buum buum xaw ma nag man lu buum di tekk góor dix mille francs wala góor fifty dalasi jigéen moom du fay ah ki dul fay moom la ñu jaay te yëgu ko pour moom daa jàppale dañ koo respect gis nga client yi ñëw ca baal ba buñ fa fekkul jigéen ñëpp bi ay góor kese duñu baal bu ñu ñëwoon toog fekk ñëpp nekk góor ñu ne dañ eh, leen baal ñu ne waaye ah, fa ngeen ab doom baal jigéen lay ñëw kon jànq li ñuy jaay yëguñ ko ñoom na ñoom ak ndox jàpp leen ñu jàpp ni dara newu ku nekk sol lu doy waar ngir dem foofa loolu moo lay wan ne xalaat gi war a ñor ci ñun dafay manqué te bokk na ci bu àddunay tukki fiir day jeex ci xol yi su fiir jeexee ci xol yi musiba am na bu ñu demee ba benn góor amatul xayra moo xam imam moo xam sëriñ daara moo xam oustaz amul xayra te ñàkk xayra mi ngi tàmbalee ci jamono ko laaj ah non ah jamono ko laaj te yow dañ laa indi pour nga defar jamono léegi nga toog yow jamono di la jiital léegi da ngay wax ñu ne njaboot gi léegi njabootu kanaara la ñooy jiitu nga topp ndax yàlla loolu la waxoon yàlla dafa waxoon jubbanti leen naatil sa bokk na ci njaboot gu jigéen ji ñu xool leen ci la ñuy sol la lekk la ñuy naan fa ñuy dem léegi sa doom ji jigéen dina nekk ci kër gi seeti faram te doo ko yëg téléphone am lay yore di jokk ak faram mën naa àgg sax ci appel vidéo muy vidéo call nekk ci néegam tëj néegam di jàkkaarloog saay saayam am na wala amul ah, ah call am na de ah? kii kay papa moo ko ne dem toogal waaye ndeke ndeke la koy demloo mi ngi mi ngi ci téléphone am di seetaan kooku daa mel ni lan kon araamaloon dagal na fi kon moo tax mu ne wa natil fawahisha bépp ñaawteef ñu koy def démb xale yi góor yi ku ëmbaloon day daw génn dëkk ba tuxu làqatu léegi nit day ëmbal ñu ne biraan ëmbal faata woon loo booy garaawul quoi ah, new coono yi jamono ko laajoon maire yi duñu mer paa yi duñu mer léeg-léeg nga gis meer bu doy waar ah, ah non de léegi ah léegi war na de walis boo dem fekk ko man xalaat sa la ne yow xale bu jigéen bu ñu saay saay ëmbal ko ngeen war a mer naqarlu ah, waaye léegi dafa bëri dara newu ci léegi de moo xew ndax gisati nga tey yaay bu ko bañ bëreetul mag bu ko bañ bëreetul te loolu tubaab bi da koo daganal ba boo ci joteeg sa doom yow bàyyi boo moytul kaso nga jëm boo ci joteeg sa doom yow yaay boo moytul kaso nga jëm léegi ñaata bàyyi la ñu tëj kaso ci sababu seen doom sa doom ne ko lii du fi am mu mer dem ni man am naa 18 ans sam papa daf maa dóor nga ñëw ñu dugal la ci kaso bi dooga laaj am na wala amul loolu du musiba loolu du musiba mooy tubaab bi ci boppam moo jël li daganal ko teg ci dooleem jullit ñi sàggan nangu ko sàggan nangu ko yàlla ñu yàlla musal benn góor dafa joteeg doomam ñu woo leen tribunal wallahi jógal li ma la may jàng ko diw mu jóg taxaw yaay bàyyi diw mu ne waaw yaa ko dóor mu ne waaw maa ko dóor est-ce que xam nga ñu dóor dañ tere mu tere waaye terewuñ na ko ci moom gis bi na ko mani xam nga ni dóor dañ koy tere mu tere waaye terewuñ ko ci man mu ne ko lu tax nga ni terewuñ ko ci man mu ne ah nekk mbaayam daa tax nga war a xanaa xamoo ni moom eh, ay weer ko def moom 18 ans paa bi ne ko bu amoon 20 ans 30 ans moo duma ko bu tàng jër mu ne mu ne ko man yàllaa ko ja jaara ci sama ndigg ma nekk baayam yàlla di ma ko laaj du ko seetaan mu fekk ay xale yu góor wax ji waa ji ne ko tëj naa la ñaari ko yokku ci ñeent yokku ci ñeent feek mi ngi dund may dund feek amul jëkkër li ma bëgg lay def coow li na kur ndeysaan bi jàpp ko waaye bi mag ñi ñibbee waxtaan dellu seeti juge bi juge bi dafa ne dama am kersa waaye bugguma ko woon jàpp waaye banaa nga xam ni même ñoom ñuy juge dañuy am kersa ci yenn ndax nga bëgg seetaan sa doom mu am fit woo xam ni lu ko neex def te yowmal qiyam ñu la koy laaj waqifuhum innahum mas'ulun sama seen daara nee na képp ku sa jabar ëmb war ngaa tiit bu amee doom war ngaa tiit bu ñuy ngénte war ngaa jooy ndax danañ la ko laaj yowmal qiyam nee na ñi ma gën a jaaxal mooy ñi am ngénte teg midit ñoon te dañoo mel ni leen yàlla dénk matal nañ ko leen yàlla dénk daa mel ni matal nañ ko moo tax jikko ju yàqu baaxul nee na bokk na ci jikko yu yàqu yi xool leen télé yi programme bi ci nekk ndax programme buy yokk diine am na ci doo ko ci gis ah? xaw ma fii da waaye Sénégal moom télé yi une heure de temps la ñu am diine tey ci guddi ku xool télé sénégalais moom diine ma ngi tuuti te diina dañ lay tegal diinay maam diinay maam duñ la tegal diine authentique de moom Sénégal dafa xaraam moom nga wax ko diine lu dul diinay maam diw diway waaje diway waaje diway maamam diwa ko jël diw nanga loolu dong la fee nekk daanaka variété la mais nekkul am waaraat boo dee di wax dëgg yow dañ laa ragal <laughs> sa benn booy alayhi rahmatullah yal na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm euh, arrangeur la woon caméraman la su ma tuddee turam ñu bari nañ ko xam ndax ma doon seet su du bëri mu am benn télé bu ñu sos mu jógee ca télé bu mag ba mu nekkoon ànd ak ñooñu dem gis nga des ku diine bi ñu yore diine bi moom ki mu àndal presque mu yilif rajo beeg bi kooku xaritam la mu ne ko dama am sama oustaz bëgg mu am fi émission doonte trente minutes la mu ne ko amul benn problème moom xam naa ko mais nag li ma jaaxal mooy yaakaaruma mu mën a def fii émission mu ne bii oustaz bu dafa tàng kooku day lakkee loolu la kooku day lakkee waa ñi ñëw wax ma ko ne ma gars de vraiment man maa ngi liggéey ci pour nga am fa émission bëgg naa lool lool lool ñenn ñi nangu nañ mais ñenn ñi dañ ñu yow da lakke da yóbbu safara rek man yaa ah, xaw ma ci dara de waaye man moom buñ ma fa yóbboo moom la ma xam danaa ko wax pour soobee yàlla am na télé bu mag fii dañ maa invité woon ci émission émission biñ ma invité woon mooy wàllu xew-xewu jamono ka ma xale bu jigéen la ma nga la ko defal nel bu set wecc sol diina toog ci rési ñuy waxtaan ba ñu dugg ci yàqu-yàqu jamono ma commencé wax mu naa ma ma ne ko yow mii laay njëkkee li nga def dafa xaraam nel jigéen du nelu yàlla xam na daa tëb rési bi génn ndeysaan maam jaarale bi mu ne oustaz oustaz sacrifié nga ma ne ko li sacrifié nga tey dëgg waroo woon tudd sama ma ne ko ah, xaw ma damay tere lu xaraam te yaa ko njëkk a def yow laay njëkkee mu ne oh oustaz wallahi dañoo censuré émission bi émission bi jàllul ba léegi mu jékki ba yàgg woo ma ne ma oustaz lu ma la waxoon émission bi du jàll man ko li ko tee wax de mais la ma ko wax moo leen neexul mënumaa ñëw ci kër di wax ne yàlla nee na yonent bi nee na nga ni jong ak sab nel jàkkaarloog man ma di la seetaan ci yow laay njëkkee ci yow laay njëkkee nga xam ne lii dagarul moo tax sunu gaar yi du ngeen leen dégg ci télé yi mukk moom kay yàlla yàlla dimbal social média ba ko tubaab bi def jubluwu ci woon lii loolu tax ñu xam ñu de waaye bu doon télé télé yenn yi rek kenn du woow kenn muy wax parce que xam nañ ñiy wax li ñu war a wax ak ñiy wax li ñu bëgg daf ñu yóbbu tey ci mbokk yi mu ne wa nu siiwul jiwaar dañuy yàq dëkkandoo mbokk yi tey ana kan moo respecté ci dëkkandoo kenn kon buntu boobu du ma ci sori bokk na ci jikko yu yàqu yi mooy di roy ay saay-saay bàyyi ñi baax ay saay-saay démb maa ngi nettali ci dëkk bi ñu demoon yenn ci ay footballeur tey bu ma ñëwee ci ay musicien xale yu góor yi bu ñu génnee solu dox nga xam kan la ñuy roy kaset bu génn mokkal nañ ko dafa mel ni iblis dafa jël seen xol yi def ko carte mémoire way lu mu jafe-jafe mokkal nañu ko koo bëggoon mu jàngal la suuratul alaq da sonn ci jigéen ñi ñan lañu bëgg ay diva ñan lañu bëgg ay waykatu saay-saay yoo xam ni tur rek lañu am te wallahi xam nañ ñi ñooñu baaxuñu ñoom it xam nañ ñi baaxuñu waaye lu ñuy def jamono bi ñu toll théâtre moo tas adduna bi ñun Sénégal li fi théâtre yàq kenn xamul nu mu toll maison de production yi tey yan film la ñuy teg dafa am benn théâtre bu ñu tegoon Sénégal ñëpp di ko coow waa ji nga xamante ni production bi moo ko géré moom moom moom level bi moom biñ ko invité muy nettali moom dafa wax ne carrément joué nañ fi ay théâtre yoo xam ne amul ay vues mais bi ñu tegee théâtre bii dañuy toog di am ay un million vues kon nit ñi lii la ñu bëgg nga xam ni wax bi dëgër na mais li mu wax mooy dëgg théâtre buy wax ci jikko ci ragal yàlla ci baax ah boobu kenn du ko seetaan kenn du ko seetaan lan la ñuy seetaan ay saay-saay yu bon yuy jaay seen bopp ñu leen di jouéloo scénario yoo xam ni mooy yàq suñu kër yi léegi lan la ñuy tegal ci théâtre wujj buy posé la wujjam koo xam ne la yow dégg dëgg dimu tàngee kii kay moom wujj bi mayu ko dara yow ko léegi da ngaa pare pour yow sa wujj doo ko may dara lan la ñuy seetaan jigéen bu ñemee wax góor defal ci man waaw yaa ko seetaan defal ci man yaa ma moom loolu la ñuy seetaan ci film yeeg théâtre yi théâtre kat buy taxaw ci dagg saaga ndey ñuy reetaan naan <laughs> dégg nga dem ba xale yi di ko fooye loolu mooy defar jikko tey théâtre kat yi ku ci gën a siiw mooy ki gën a mën a wax lu bon ki ci gën a siiw mooy ki mën a gën a mën a jouer lu bon li ñu ragaloon def léegi ñeme nañ koo def mooy léegi àgg nañ ci jigéen ci théâtre mu summi yéreem comme ni ko ndeyam juróowoon tafu ci góor wala góor gi def lu mel noonu léegi ñu bëgg ñoo wan ne ñii ñii njaaloo nañ mais dagan na quoi dagan na loolu la xale yi seetaan na xaw ma nag fi musiba bu toll ba ma koy wax ci mer mi xaw ma bàyyi ngeen loolu xel wala déet waaw te ñan la ñuy jël gis nga ñuy def théâtre yi am na théâtre kat yoo xamante ne ay diplômé lañ kenn du leen jox yenn scénario yi nanguwuñ ko waaye dañuy dem xam nañ fi mbir yi nekk fi ñu bon nekk ñu fay leen def leen ay acteur ak i actrice ndax ku ñemee jaay sa bopp di def lu bon wax lu bon du yomb di jafe ci yow ñoo la ñuy jël ñooñu nag ñooy solu col goo xam ni suñu waa arab yi dañ koy tàmbalee sol ñooy solu col goo xamante ni ñu ñu war a yar ñoo koy tàmbale nga dégg tur bu nekk ñu koy tudd yow dégg nga léegi Facebook bi foo tourné ay séquences yu ndaw lañ lay jox ci théâtre comme li tubaab yi di def suñu bon moom la ñuy def bu dee tubaab bi nit ki di ko seetaan sax ni tubaab la mais bu dee kàddu sénégalais comme yow di làkk li ngay làkk di wax li ngay wax di def li ngay def nga nan lañu ñu mën a tegee théâtre benn góor ñetti jigéen di ko xëccoo jigéen ju nekk mel ni nga war a mel ci sa biir nit ku nekk di wëngëñ wëngëñ ñu di ko seetaan waaye subhanallah waay gis ngeen mbokk yi jikko ju bon dara meru ngi su àggee ci aw nit feebar bi mu leen bi njëkk a jox mooy xel yu mel ni ngelaw dootul jàpp tey xale bu gën wax ma ne non man mënatuma mokkal dara quoi nooy mokkalee kuy seetaan moom bon du mokkal da gis mag léegi nga wax ko mu ne la bindal ma ko damaa gaaw a fàtte bàkkaar bu tasaaroo ci ab dëkk ñépp di ko nooyi kenn du ci mucc borom bi wax nañu ko ci alquran borom bi wax nañu ko ci alquran nee na àdduna dana toll foo xamante ni yàqu dana am bu leen foog ni ci ñoo ko defoon la yem de zahara fasadu fil barri wal bahri fan la ci teg bi ma ki waxut te noppi ci la bokk bi maa kasabat ay dinaa ki gis te mën a dindi dindiwul ci la bokk bi maa kasabat ay dinaa ki liggéey ñuy def lu bon ci la bokk bi maa kasabat ay dinaa ñaata ngay gis fi ñu jël seen courant luyee ko ñoo xam ne caaxaan rek la ñuy tey àgg nañ ci jullit bu ñemee moom baar jaayutaayu sàngara àgg nañ foofu tey boo waxee ñu ne dara nekk bi dem nañ ci benn dëkk ngeen baal ma rek seen dëkk dëkku séeréer la moom dëkku séeréer la de bi ñu demee foofu jullit ñi ñooy yar mbaam xuux yi ñu ne leen xay ñu ne lekkum ko lañ koy jaay yi ma la xaaral ma noppi bokk benn baax bi dama oustaz lii moo gën a dox fii lii di ko mën a jaay ay trois cent mille maanaam mbokk jël na mbokkam yoonu kenn tey kii mu jàpp maanaam pour moom jàpp na ne yar mbaam xuux dara nekku lekkut ko moom lekk bi waaye yar beeg jaay bi dagan na mu ne kullu ma jarra ila maasiyatin fa huwa maasiya waaw kullu ma jarra ila xaraam fa huwa xaraam lépp lu bit di jëm ci li xaraam dafa xaraam jullit tey ñemee tabax këram xaaj ko def ci dansin xaw ma lu ngeen koy wooyee yéen dansin rek feccukaay cakar cakar di ci lekk alal di ci noos joolaay ñoo koy wooyee baal poussière baal poussière waaw poussière kese la de kon loolu mbokk yi ci jikko bu ñaaw su ma bëggoon a tënk lépp du ma jeexal waaye billaahi li ma wax ku nekk fii xam na ko ku nekk ci yéen mën na koo wax ñu xam ni dañoo toll nag fi ñu sonnee lool lool tey rek ñetti waxtaan def naa <laughs> su ma leen dëgg daanaka dem sax yombatul te dañoo war dellu Dakar li ñu naqare daal bëri na waaye jàpp naa ni jot naa fee am au quarante minutes jàpp naa ni xol yi sedd na ci li ma naa ni lan nag mooy njëriñal waxtaan waaw nee nee nañu dolli waaw <laughs> moom bëgg-bëggam la wax ne xam nga luy njëriñal waxtaan samina wa ataana lu yëg ci waxtaan samina wa asayna xale yu jigéen yi li ngeen fi déglu bàyyi leen ko xel xale yu góor yi li ngeen fi déglu bàyyi leen ko xel wax du am njëriñ feeg jéewuñ koo jël di ko jëfee nañ leen góorgóorlu yéen ñiy jàng ci école bi maa ngi leen di dénk góorgóorlu leen jàng leen arab jàng leen anglais jàng leen xam-xam yéen xale yu jigéen yi pare leen pour nekk ay daa'iya ila allah di woote ci yoonu yàlla li gën a jafe mooy jigéen ju am xam-xam di wax yàlla nee na yéen ñëpp ku ne mën na koo xale yu góor yi mel leen loolu waaye maa ngi leen di dénk gis nga al ilm nuurun fa nuurullahi laa yuhda li aasi xam-xam leer la de yàlla du jox leeram mooy ko fi yàlla sooy jàng ci école bi bëgg xam-xam bu barkeel góor góor lul ci julli ci jaamu yàlla ci moytu bàkkaar wallahi boo ko defee loo jàng yàlla dana ko barkeel waaye boo bëggee di jàng nag te lu nekk nga def ah yaa ngi tooñ sa bopp de ñi ñu fi tàgg di borom xam-xam yëpp leen dimbale mooy ñu muñ xam-xam muñ mooy laytaayam muñ ak wàññi nelaw ku la gën a bëgg nelaw du la jiite nelaw moom góor ak jigéen a ci yem ku la ko gën a bëgg xamal ni kii doon sang ki bëgg doon sang day góorgóorlu yàlla na yàlla defal jàmm defal leen ko salaamu aleykum wa wa barakatu